man sàkk fi kawni ibni abdullahi bokki ginnaaw bu ñu barkeeloo ci kii bi ba noppi niñ ko daan defe rek lañ koy defe tey nag li ëpp ci li ñuy def te war cee taxaw moo di ñaan ginnaaw bu ñu fàttalikoo suñu boroom yàlla mi nga xam ni moo ñu bind di buur boo xam ne bii du du folliku du faatu du fàtte du gëmeentu du nelaw te ku ku mu jàmmal kenn mënatulaa sonal de ku mu jubloo sonal kenn mënatulaa may jàmm yëmmi buur boobu nga xam ne moonu bind te moom nu te te ci ñun ñu jaamu ko ndax wax na ni binduma leen du dul ngeen jaamu ma koy faral di waxe rek ñuy moytu li nga xam ne nii daf koo digee ñun ni warlu na ko ñu koy dimbali ci loolu bay fàtte lim nuy def loolu li tax mu bind nu fàtte ko ngir di ko dimbali ci lim nu warlu wax na ni sunu sunu sunu dund sunu wërsëg ak sunu am am moom moo ko warlu ku mbind ku ne warlu na la wërsëg laajuloo ko dala koo warloo léegi jaamu ko moo tax ñu moo tax mu sàkk la jaam bu nekk jaamoo ko tax mu sàkk ko léegi ñuy góorgóorlu ci fas yéene di ko jaamu suñu kem kàttan tey moytu ci di ko dimbali ci lim warlo ba ba ba muy manqué lan war a def mm, mm. loolu nañu koy bàyyi xel waxtu wu nekk jamono yi ñu toll nag moom ku ne xam na ni fii ñu toll euh, réew mi soxla na ñaan ñaan hmm. koo xam ne kii day matale hmm. du du jëm ci kii wet bàyyi gële Sénégal gépp gépp soxla ñaan fi mu ne kon nag nañ ñaanal Sénégal gépp li ko waral moo di ku ne xam na ni jamono yi ñu toll moom euh, fitna yi bari na ak jaaxle yi ak ak ak yi dara waralul lool nag lu dul li ma waxoon léegi rek comme yàlla bi mu ñu bindee daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko mais jaamu leen ma moo tax ma bind leen li ngeen may jaamoo nag waraloon naa leen ko wàcc ku ñuy wàcc lim nuy lool di dem di ko dimbali ji ci lam lu ñu dal looloo ñu ko yóbbee te ab ab ab ab ne ab kër moom bu jàppee di lakk yoo koy kese du ko fay hmm. yëgle rek lay doon mi ngi mel ni ak lakk jàpp rek nga téléphoné sapeur pompier waaye woote ga téléphone téléphoné ba ak toog du fay lakk di fu ñu tool rek di coow réew benn njariñ bi jàngoro bu duggee ci ab dëkk li gën mooy ñu seet fa jàngoro ji jóge ñu sakk foofu ba dootu fa jóge di ñëw xool ba xam bu fekkee jàngoro ji day wàlle ñu dànk ko ba du ñim daloon mu yem ci ñoom dootu wàll kenn ñu fexe faj jàngoro ji bu ñu ko fajee ba mu wér bunt ba muy jóge di di dikk ñu sakk bunt booba dootu ñëw loolu moo ëpp solo toog di di wax ak a jàmbat rek léegi euh, ay bokki jullit fu ñu dajaloo rawatina euh, ndigalul suñu borom li ñu génne yàlla dimbali ñu ba ñu def ko ba mat ñu ñaan yàlla nangul ñu jëf ji ñu àndandoo maase kenn ku nekk ni teg jàng fatiha ak ak uh, fàllax ak naasi ak lixlaas lixlaas ak fàllax ak naasi delloowaat sa xel ci sa borom fàttalikuwaat yàlla tuubaat hmm. jégguluwaat ñu doog a ñaan ba dellu sa kër boo toogee sa sa jaaxal ak sa yitte yaa xam hmm. li ci sa xel yaa xam nim la ñore ba nga cay xalaat noo ko lijjantee nga delloo noonu ci sa boroom tuubaat euh, jégguluwaat bàyyiwaat xel loolu mu waxoon ni ngeen jaamu ma rek tax ma bind leen te euh, lii li nga xam ne nii moo nuy jaaxal ba bay ub suñu bopp muy muy muy yitte yeeg dund bi nga jël ko jébbalaat ko bàyyi ko ci ay loxoom dina la ci jàppale te ñu fas yéenee sax ci loolu léegi loolu mooy li nga xam ne nii moo ñu mën a mën a dimbali ba ñu kii ndax ñaare jafe-jafe bu amee ci am réew wala dëkk walla aw aw aw xeet euh, wàcc yoon a koy indi wàcc yoon nag moom la lay lu mu indi lay saafara loola tegewaat ci aw yoon rek ñun ñëpp nañ maasiwaat tuub te dalluwaat ci yàlla te te te suñu bopp te moytu buur bi du dee du tuxu du folliku nga wàcc ko fi di jaamu buur buy dee di tuxu di folliku dañuy bàyyi xel lool ndax buur bi moo nu mën a lor suñu loree su loram jógee kenn mënu koo fànq lu dul moom bi su njariñam jógee kenn mu jër sa ragal ci njariñ lay agsi ragal ko ba jàpp na njariñ la du agsi lim naan ci yow moom bindeef mënta teemu agsi ci yow lim naan nga am ko waroo ragal mbindeef ba euh, tax ragal ga indil la nga ñàkk jot ci loolu nañ jël lépp jébbalaat ko yàlla delloowaat ci moom fa fas yéene tënk ci lislaam tënk ci li ñu diine di sant lépp lu ñu lislaam te ñu di ko moytandiku te bàyyi suñu bopp ak yàlla mooy buur bi nu àttan mooy buur bi nu mën a dimbali waaye du beneen buur beneen buur jërul ragal beneen buur jërul yaakam kon ñu kenn ku nekk na nga def ñaan fi nga toog ci ñaan gi mooy jafe-jafe bi nekk ci réew mi yàlla teggi ko te teggil ko ñëpp ku mën a doon rek boo xam waa nguur gi la opposition beeg ak civil yeeg euh, ak ak takk der yeeg ak ñeneen ci àll ba ak ñi ci tax ñëpp lii Sénégal daal moom ne ñëpp ñaan jàmm am fi joo xam ne ñëpp ay nekk ci jàmm lépp loo xam ne nii lu luñ fi séntu la ci aw ay suñu borom dimbali ñu ci yërmandeem ji ak ak màggam gi ak baaxam gi fegal na ko ba loola bañ a agsi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mën a jàng xasida googu ak foo mën a nekk na nga ko jàng te yéene ci suñu boroom yërëm euh, réewum Sénégal te yërëm xeet bi te yërëm ñëppit nag bu kenn des ndax sëñ bi bi mu cee ñaan irham jami al waraa la wax dem na banaa suñu boroom yërëmal bindeef yëpp ñaanalutoon euh, aw xeetam képp wala ñanewoon fi ñëpp la ñaanaloon kon nag ko ci am te mën koo jàng nga jàng ko te ñaanal ci ci ci ci réew yëpp jàmm am fi xéewal am fi ak jàmm te yërëm bindeef yépp ni mu ko ñaane woon irham jami al wara la wax yow suñu borom yow mi nga xam ne doo fayantoo yërëmal bindeef yépp kon nag Sénégal dugg na ci mbindeef loolu rek laa doon jottaliwaat ku ci am xasida gi rek noonu ko jàng ci bis bi yéene ci jàmm am Sénégal xol yi dëppoo nit ñi juboo te ñëpp nekk benn te te dara bañ a yëngu wasalaam